en ak euh, ni ñu ko baaxoo rek mbokk yi saa su ne ak yéen ma pàcc yi bari na lool rubrique yi soxna Mado ngi teew soxna si jaww maa ngi lay ziar. <laughs> maa ngi lay fay lu bare bare tonton maa ngi nuyuwaale sama tonton Abdou Aziz <laughs> xam naa asumben nag dina ma rey tey parce que tere na ma naan tonton ci plateau. waaw <laughs> ah, mais mais mais yàqu ci dara. Mado ci kanam tuuti dinañ ànd ak yow. Ibou Diouf la ñu àndaloon ndar may ko rek mu tàggoo sama mbokk séeréer bi def ko ci nu mu la neexee nag wolof wala séeréer. waaw El Hadj góolu naa xeer yi d' accord na <laughs> dina fay waaw waaw di tàggatoog mbokku téléspectateurs yi rek di leen jox dig daje aljuma bii di ñëw incha allah ci yeneen euh, rubrique Ibou Jokalante. jërëjëf <laughs> Mado tey lan nga indil mbokk yi ci wàllu eh, defaru waaw de affaire defaru tey laa indi dama demoon si balaa boobu sax ndax fàtte naa nuyu sànq téléspectateurs yi ñu tàmm di seetaan mhm. maa ngi leen di nuyu te j'espère que yeewu ngeen ci jàmm pour suivre seen émission bi di yeewu leen mais balaa boobu tonton sax may dem ci thème bi danga may may tuuti rek si tu me le permets bien sûr ndax ñu bare dañu woo di ñu naan pour ma rappeler leen astuce bi ma joxe woon la dernière fois mhm. ci wàllu savon noir ak euh, Foden ku mel ni yaayu euh, Muntagali donc c'est juste boo jëlee savon noir bi da ngay jël benn kuddu savon noir ak benn kuddu fuddën bu mag nga mélanger ko bu baax boo ko mélanger bu baax ngeen diw ko ci seen yaram xaar pendant cinq minutes à dix minutes mu wow bu baax ci seen yaram ngeen daal di sangu su boobaa day mel ni gommage teint yeeg impureté yi am ci yaram bi yëpp dañ donc tey nag xaaj mhm. Assane li ma leen indiloon moo di euh, wàllum sañse comme da ngeen xëy tey di wax ci affaire jongama donc ma demoon seeti nag euh, Tata Thioub Fall euh, mu explique ñu nan la soxna war di solo et puis wan ñu aussi li xew ci jamono ñu àndandoo xool taaru jigéen taamu nañ ci loolu li di yëre wolof ba tax na ñu demaloon leen ci kii di soxna Cubb Fall ngir mu won leen li xew ci jamono ji. maa ngi leen di présenter samay model ci tàngaay bi surtout xale yu jigéen yi ak ajaay yi maa ngi voile yi ñuy ñaw perle ko ci été bi chiffon taybas yi gros petit fil cuub yi grand boubou lépp lu ñuy ñaw muy jeune muy mag muy góor muy jigéen ñaax nag jigéen ñi ñu farataal yére olof parce que jigéen bu solee yére olof rek dina saf jigéen bu solul yëre olof moom macha allah waaye daal yére jigéen moom am na leneen lu mu yokk ci jigéen lu baree baree baree baree bare lu bari te gàllaaj la tam ci jigéen li laa leen indiloon tey ci yeewu leen di leen ñaax bu baax a baax a baax a baax ci sañse olof bokk soxna yi fonk leen yëre olof ndax mooy génnee taaru jigéen kon boog Hadj Hassan lii laa la indiloon ci sa émission yeewu leen di ñaan yàlla wonelewaat ñu ci jàmm ak salaam ñun ñu fekkee Euh, Mado Diaw moo ñu demaloon ci soxna ci bu Fall ñu koy ziar soxna si bu baax rafetlu nag Aziz euh, liggéeyam bi wax. mais kii euh, liggéeyam bi rafet na trop Aja li mu soxo émission yeewu leen bi ñu ngi ko ciy gërëm waaye defe naa di nga ci yóbbu soxna yi da nga fa yóbbu ñu nattal leen. mais incha allah kooku mënut a ñàkk na ko Mamadou daal di rek subventionné Mado. <laughs> waaw kon nag <laughs> loolu nañ leen demaloon ki ci tata ci bu Fall di remercier aussi au passage tata Maritou Agne a que dafa bëgg di ñaax doomu Sénégal yi surtout xale jigéen yi ñuy faral di sopp li nga xamante ne moo di yëre olof bu ñu solee yëre tubaab tubaab fakkaat la macha allah yaañu na loolu waaye buñ ci dal di boolee yëre olof baax na bu ñuy déglu sax ni tata Cubb Faal waxee dafa nee ni que yëre olof gàllaaj la ah. gàllaaj la ci jigéen donc ah. na jigéen yi di ko faral di ko sol baax na bu baax te ah. moo gën a ànj gën a yëw defe naa loolu man sax damay jubbanti ni nga waxee j'aurais sol yëre wolof di ci boole yëre tubaab <laughs> dund ay tubaab eh, pourquoi yëre tubaab bi war a war a gën a sakkan yëre wolof bi eh, Bessél euh, xam nga nag man na may na man tout le temps damay wax rek nit lan nga ko tàmmal mhm. ci loolu lay wéy parce que mhm. boo amee sa doom nga tàmmal ko ci yëre olof Euh, man gis naa koo xam ne bu muy nekk xale yére olof lañ ko doon solo dafa dem mag mais mënutul sol yére tubaab mhm. loolu yëpp daal ci éducation de base bi la sama genre gi mënuñu wodd sër laaj asan daal ñii ñu mhm. ñuy wax nii man mënuma ko dégg ah, parce que ku am sa xaalis dem di jënd mën ngaa jën yére olof ah. mais boo solee yére olof di tàgg booy woggantu ko wala nga takk sa sër mel ni pitax mu mu mu laa fee tooy xam nga ñoom ñoom yi ñoom bijoog ñoom uh-huh. kii dama leen di sànni xeer ak waa waa waa Dakar ne dort pas léeg-léeg ñu indi colin goo xam ne ah, loolu eh, foog foog ñu sol yére olof parce que Dakar ne dort pas ñun ñuy dem ci Dakar ne dort pas uh-huh. yére olof la ñuy sol du ñu sol yére tubaab yére tubaab bu ñu koy sol dafa fekk ñuy dem ci boîte de nuit parce que bu nekk dafa am loo xam ne moom la laaj uh-huh. comme li fi doo wone dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo ko moom ñu jongoma yi suñu tante yi ngeen bàyyi ci kër yi a mais ñun dafa am fu ñu toll ay tay baas yu ndaw la ñu toll war ko war koo sol. mel ni xar mënu jatang loolu tamit loolu loolu loolu ci ku sol ku woon. asan loolu tamit baaxul Aziz jërëjëf Bessel maa ngi lay gërëm Mado naka noonu di ngeen ci mas a jóg ndax di nga toll ci at foo xam ne ci àddina. waaw ah. doo mën a sol lu gàtt. jërë ngeen jëf ñu daal di jàll mbokk yi ci firi gént ak yow Oustaz Abdou Karim Ba eh, ci li nga xamante ni mooy sentiment ci biiri gént gént di jooy di ree wala tiitaange ak yeneen lu muy tekki Oustaz. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa zurriyatihi ridwanullahi taala alayhim ajmain mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara euh, tey nag ñi ñëw leen ci ñaari mbir yu am solo yu jar a bàyyi xel te nit ñi di ko faratal di gis ci lu bari muy loo xam ne ni dafay bari lu ko askan wi di gis di bëgg xam maa bayaanuhu lan mooy tekkeem bi ci jëkk mooy gént di reetaan kontaan lool wa muy dem sax ba gis ñoo xam ne dañuy fecc bu ñu kontaanee ak yu mel euh, loolu la ñuy wax ci arab al faraxu wa surur wa raqs wa ma ila zalik nga gént fecc kontaan bég maa fi xeer amul yiw yuaddi ila mataib suubat machakil mutaaddida laa tuhadd wala tuxsa day indi ay xar-xat yu tar ci dundug doomu aadama di la jural naqar bu metti wa xataa di la jural sax ay jafe-jafe ci wàllu wërsëg ci wàllu am am ci yaakaar buy tas muy ree kontaan bég fecc dan baaxu ci waaye ci gën wàll gi dañ leen indil ala kulli xaal mbir mu am solo muy contraire loola muy alxusnu al amiq wa diq shadid njàqare bu ter nga nekk ci nekk ci mer am naqar ci gént nee nañu mer ci gént yiw la naqar bu metti wala ngay xeex di xuloo ba sa xol tàng yataxayaru alxusnu faraxan wa surur fi xayaatil insaan loolu day soppeeku nekk yiw bu bari ci dundug doomu aadama muy naqar bi ngay am muy contraire la ca des waaye ñu xamee ni daal wax dëgg yàlla Euh, bég kontaan di kontaan bay fecc amul yow dul gën ci dundu doomu aadama muy ñaari am solo yoo xam ni dañ ci war a bàyyi xel nit ñi di ko sóoraale bi nga xam ni moo ko ñetteel mooy ñu bàyyi xel ci mbir yoo xam ni dafay tuuti suñu bët sax waaye bari na lu ko askan wi di gis muy gént di naaw guddi ak gént di yeey gerte ak yu mel noonu gént di yeey gerte baaxul alfustuq ma fii xeyr waaye génti dinaaw it bare na askan wi lañ koy gis di ko ñaan di ñaan ñu indi leen ci ay leeral gént génti dinaaw amron tawilun fi xayaatil insaan guddi gi fan lay jural nit muy la am solo waaye daal alfustuq ñu ki daal bu nekkee ci jàmm génti di yëy gerte wala ñi di jënd gerte wala ñu di ko ko may moo xam bu ñu saaf la moo xam bu ñu saaful maa fii xeyr alfustuq diqun shadid wa machakil mutaaddida fi xayaati l insaan amul yiw gerte baaxul ay xat-xat la nañ ci bàyyi xel lii nag lañ leen indiloon tey mbokk yi incha allahu ajjuma bii di ñëw bu soobee yàlla bu ñu fi yàlla bàyyee ba ñu tasawaat dañ leen indil yeneen yi nga xam ne askan wi yitte woon nañ ko di ko laaj saa su ne bu ci nekk dinañ leen ko faram-fàcceel indil leen ci ay leeral wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.